wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman radiallahu an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wa ala taabiina wa taabiina lahum ma baad mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku seen ngay ñaanal di ñaanal mbokki senegaal ak li ko wër di ñaanal ñi nga xamante ni dañoo nekk ci lali hôpitaux yan yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu seen njaboot di ñaanal yàlla ñi nga xamante ni dañoo nekk ci pression yi ak dugal leen di leen ñaanal yàlla yal na leen fa yàlla ba ñu dellu seen njaboot di ñaanal ki nga xamante ni moom mooy mudiru télévision Nassirou TV imam Mohamed Niass yal na ko yàlla may kàttan ak wér ba mu mën a matale li nga xam moom imbébétam ci jaame di nuyu techniciens yi nga xamante ñoom lañuy àndat ci émission bi di leen ñaanal ñoom yal yàlla dëgëral seen taxawaay tey la lundi 19 ñi ñëw àndaat ak yéen ci dars bi nga xamante ni nanga ko jàll fii si télévision Nassirou TV mu doon dars boo xamante ni dafa aji woon ci naxu di ajurum jëloo na li nga xamante ni moom moo doon muqaddima bi tey ñu yesi si li nga xamante ni moom mooy bunt bu njëkk bi bunt boobee di baabul inraab bi inraab nag bi nga ko waxee moom mooy soppeeku mask ak mujj ak baati ngir wuuteeg njëftee yi tàbbi si moom si loo xam lu feeñ la ba ñëpp mun koy laal wala mii loo xamante ni dañ kaa nattale ba kenn mënu koy laal na lii la soppeeku mask ak mujj ak baat yooyu mooy kalimi yi mujj bi dee damm la ñu ne lii damm la bi dee rafan la ñu lii rafan la bi dee nasab la ñu ne li nasab la waaye bi loo xamante li natale la mënoo si àgg ci loolu bi dee si la ñoom ñoo pay bokk waaye xëy na bi demee ba ci enrab ba ngay gis ne nit ku bu ñëwee méthode ba mu koy enrabee den yet insha rabbi qaida bu nga xamul ne tëdd al enrabu huwa taxyiru awaaxiri l li ixtilaafi al awaamili ad daaqilati alayha lafsan aw taqdiiram irab daal bi nga waxee huwa taxyir awaaxiri karim mooy soppeeku maskak mujj ak baati ixtilaafil xawaamili daaxile ngir wuuteeg njëftee fi tàbbi si moom lafsan aw taqdiiran mi lafsu comme ni ki nga ne jaa lafzu baat la boo xamante ni nga ne jaa saytun seydin gu mujj noonu dafay rafaa fan la ci jaa dafay rafaa loo mën a lal raaytu seydan mafoon la ci raaytu dafay nasab mu ngi nasee fata loo mën a laal la maratu tamit bi seydin dangay gis kasra ga tamit gis nga nam fa feeñee loo mën a laal la waaye bu doon taqdir la comme tey nga ne si misaal nga ne jaa am muusa raaytu muusa maratu bi muusa xamtu su maxsuur googee moo tax leen fay nattale bu dee ci faanja damu ja leen fay nattale bu dee ca maful jëla leen fay nattale li nga xamante moom mooy fatxa ja looloo tax ñu ne ko soppeeku maska mujje baat ngir wuute njëfteef tàbbis moom moo xam lafs la wala moo xam diir la waaye li mu ko mën dañ koy nangul wa aqsaamuhu xaajam ya moom inrab arbaatun ñant la arab am na ñeent xaaj yoo xam moo fa nekk rafon dafi rafan la wa nasbu ak nasab wa xafdun ak xafat wa jismu ak gisam ñu ne dafay ñoo ne dafay rafan walla ñu ne dafay nasab wala ñu ne dafay xafat wala ñu ne dafay jasam ñii ñëw si arab bi te arab bi dana am soppeeku mi baabun baabun xabru mubtada bin xasaf la ak nettaleem haasa haa harfu tanbiix saa ismu isaara tey mubtada mubtada dafay rafaa ñi binaa ko sukkoon ngir li mu ismu isaara ñi binaa ko ngir li mu ismu isaara ismu isaara binaa ne leen binaa i'raab bi ci feeñ baabun ji moom mooy xabaram xabaru mubtada dafay rafaa mu ngi rafaa damm li si mufrad suré mu damm mu daaf al i'raab yi mu daaf ilayhi mu daaf ilayhi dafay xafat mu ngi xafatee lay xafatee al si boppam nag ñëw mooy i'raab bi huwa taqyiiru awaaxiri dafay rafaa mu ngi rafaa damm lismu mufrad suuree mu damu lay rafan huwa damiru fasil si wax ji gën a wér amul barab si arab naa ko si fat xan da tax fay damir damir binaa ni binaa arab feeñ maanaam moom huwa gi def di ñëw di doon des fois ñaar xam na huwa goo xamante ni damiru munfasil la mooy wax dafa tàqale diggante mubtada ji ak xabar ji xam na xëwa joo xamante damiru fasil la xëwa gii na ngi nekki moom damiru mun fasil la parce que dafa nekk ci diggante mubtada ji ak li nga xamante moom mooy xabar yi taxyiru moom mooy xabaru i'raab xabaru mubtada dafay rafaa mu ngi rafaa damm lisum mufrad suy remuj damm lay rafaa te mudaaf awaaxiru mudaaf ilay mudaaf ilay dafay xafat mu ngi xafate kasara lisim mufarad su ree muj kasara lay xafatee tey mu daaf alkalimi mu daaf ilayi mu daaf ilayi dafay xafat mu ngi xafatee kasara lisim mufarad muj kasara lay xafatee ixtilaaf yi jaar ak la majruur dafay xafat mu ngi xafatee kasara lisim mufarad ree muj kasara lay xafatee alawamili te mudaaf alawamili mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi dafay xafat mu ngi xafatee kasara li si mu fara suré mu kasara lay xafatee ak daqilati moom moom may naat naat la boo xamante ni dafay melal naat moo de loo xamante dafay melal moo tax euh, ñu ne ko addaaxilatu moom naat la boo xam dafay dellu ci awaamili lu naat si du xafat dafay xafat mu ngi kasara li suma fara su dee mu kasara lay xafate xale yaa jaar ak majruur la majruur dafay xafat ñu binaa ko sukkoon ndax dafay damir damir binaa ne li binaa arabut fen ama lafsan nag ñaari arabu ci ñëw am na ñeen ñu koy wax ne masdar la ixtilaaf boobu li am ñeen ñoo wax ne xaal la yi am ñeen ñoo wax sa ba ne tamis la ñu ne lafsan moom masdar la rek masdar dafay nasab mu ngi nasabe fatxa lu si mufros yi remit fatxa lay nasabe aw taqdiran xata amatu lafsan lu aati mu ngi rafaa damu lu si mu lu aati aw taqdiran xata nasab dafay nasab mu ngi nasabe fatxa lisum mufarasir muj fatxa lay nasabe parce que sirum xatfu moo tax te damaat fa dafa nasab kon moom daa war si moom mu nasab mu ngi jéegulu si leen wax ne dafay rafa noone amaa wa aqsaamuhu nag arbaatun rafun wa nasbun wa xafdun wa jasmun xaaju inraab yoolu nga xamante ni moom ñeent la mi rafaa ak nasab ak xafat ji ak jësam ci ñoom seen i'raab yi da naan waaw istisnaaf kalaam aqsa mubtada mubtada dafay rafaa mu ngi rafaa damu li si ci wére mu damay rafaa te mu daaf hu mu daaf ilayhi mu daaf dafay xafat ñi binaa ko ci damu ndax dafay damir damir yi binaa leneen liñ bina i'raab ci feeñ rafun arbaatun moom mooy xabaru aqsam xabaru mubtada dafay rafa bu ngi rafa damm lisimu lim biñ toggalewut damm lay rafaay lim nag fu mu ñëwee rek ci ginnaaw badal leen si teg kon moo tax ñu ne rafun badal leen si arbaatun lu badal ci lu rafa dafay rafa mu ngi rafaay damm li si mufrad wéree mujj damm lay rafaay wa nasbun xaatif la ak maxtuuf si rafu laat si lu rafan dafay rafan mu ngi rafan damu li si mufrad sure mu damu lay rafan wa xafdun wa jismun ñu ma ñaate amatu leen si rafun laat si lu rafan dafay rafan mu ngi rafan damu li si mufrad sure mu damu lay rafan fii la yem ak yéen ba beneen darsu insha allahu rabbi di ñaan yàlla yaa neen ko dégg bi nga ko déggee yàlla jëriñ bu jëriñee yàlla neen ko sotti ci yoon bi nga xamante ni moom leen bëgg mi ci xam-xam ak la sa at yëpp ak juróom ngoogee kii sonn jaam yaa tax mi sonn kii jëfit yàlla rekk a tax miy jëf kon yaa na yàlla nangu suñu jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الكون والزمن بإسلامي وإيماني